internet de Lou'Bess TV may am mbégte saa su nekk di fi teew ah, di leen jeg dëgteel li nga xamante ne dafay jug ci askan wi mu doon mbégte bu rëy rëy ñu daal di ñëw ci suñu premier numéro bi di découvert découverte nag comme son nom leen di dañuy découvrir li nga xamante ne xamuñu ko wala sax li nga xamante ne dafa bees ci askan wi may am mbégte bu baax a baax dalal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa projet bu Cambérène Seydina Issa yi ci sam ndeyjoor mu feggoo ak Aram ah, mu di bàjjenu gox en même xanaa ma bàyyi ko rek mu nuyoog askanu Lou'Bess TV waaw asalaamaaleykum waa Lou'Bess TV maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ñaanal jàmm ak xéewal di nuyu Aziz sama naataangoo bi nga xamante ni moom laa fekk si tey di nuy yéen ñi nga xamante ni yéen équipe bi liggéey ci biir ma leen di nuyu bu baax a baax. merci. ngi lay fay bu baax a baax bàjjanu gox di la dalal di fàttali rek sa liggéey dafa am solo bu baax a baax du ci wéccu benn yoon da ciy feggoo ak ki nga xamante ne moom moo di Abdou Aziz Fall mu di secrétaire bu projet bi nga xamante ne moom moo di Seydina Issa Laye ah, Aziz ma bàyyi la nga nuyoog askanu Lou'Bess TV. voilà merci Chérifa donc maa ngi ziar ñëpp di nuyu également ñi ma fekk si plateau bi muy Aram Niang vraiment nekk bàjjanu gox bu ñëpp ràññee si dëkk bi. Euh, pour ñi ma xamul man Abdou Aziz Fall tudd nekk secrétaire général projet de développement communautaire euh, Seydina Issa Laye bu Cambérène euh, en même temps di yëngu si lépp lu jëm ci wàllu développement merci. merci beaucoup gis ngeen taxawaay bu am am solo bi nga xamante ne moom la taxawee dafa yëngu ci lépp li nga xamante ne daf di développement tey nag ñu am mbégte bu baax dalal leen fii nii mbokk yi yéen a ngi ci seen premier numéro bi nga xamante ne moom moo di découverte première question bi dama koy jox ki nga xamante ne moom moo di Abdou Aziz Fall ma bëggoon rek nga ñëwaat ci définition li nga xamante ne moom moo di projet Seydina Issa Laye. waaw merci euh, pour cette euh, question parce je pense que c'est une question très très pertinente. et que ça nécessite même pas une réflexion parce boo xoolee projet bi ñun doon juddu fekk ka fi euh, suñuy mag suñuy jur sax am na ñoo xamante ni jot nañ jaar ci projet bi euh, projet bi nag euh, dafa nekk comme ni nga ko waxee projet de développement communautaire Seydina Issa Laye di yëngu lépp loo xamante ni dafay jóge ci communauté bi également pour appuyer leen de ce surtout li nga xamante ni moom mooy côté xale yi tout tànk yi ñi nga xamante ni dañ am zéro ba 5 ans am ñi nga xamante ne dana am 5 ba 14 ans am ñi nga xamante ni 15 ba 24 ans donc chaque tranche d'âge nag am na série activité yoo xamante ni moom la ñuy def ak ñooñu donc projet bi nag si li muy yëngu bëri na euh, xam naa dinañ ci dugg mais pour def benn présentation bu ndaw rek boo xoolee projet bii nii du benn rek si si Cambérène boo xoolee 6 la yoo ñoo nekk dans la région de Dakar ni ko Cambérène amee noonu la ko Dalifort amee noonu la ko Sébikotane amee noonu la ko euh, euh, Guédiawaye amee Wakaam Yoff et cetera donc noonu lañ ko amee léegi nag dafa am kenn koo xamante ni moom moo ñu regroupé muy suñu partenaire potentiel muy Child Fund mais ñun nag dañ affilié aussi si nga xamante ni moom mooy fédération Pencum Ndakaaru donc comme ni ñu koy waxee fédération Pencum Ndakaaru nag moom moo regroupé six associations si association faîtière en réalité voilà donc loolu moom mooy projet de développement communautaire xam naa aram dina si gën a ñëw pour ay leeral Eh, gis ngeen bu baax euh, définition bi nga xamante ne def na ko ci projet bi dugg ci li euh, projet bi gox yi nga xamante ne am na fa ndaxte yemul rek Cambérène bëri na ay xale yoo xamante ne jaar nañ fa xanaa rek euh, ma jox bàjjan aram nga xamante ne du ñàkk mu sànnil ci dara ci li nga xamante ne moom moo di définition wu projet bi. waaw asalaamaaleykum ma nuyoowaat waa comme ni ko Aziz waxee rek projet bi moom projet Seydina Issa Laye bu Cambérène mu ëmb ay xale yoo xamante ni enfant enfant parrainés yoo xamante ni si dëkk bi lañu dëkk ne ci biir quartier ñoom ñu ciy liggéey liggéey bu am solo ñu ciy liggéey liggéey bu am solo waaw projet de Sey projet Seyna Issa Laye nag moom li ko tax a jóg mooy askan wi ni bii nga xamante ni fi leen dëkk muy dëkku Seyna Issa Laye bépp quartier boo xamante ni mi ngi fi rek am na ay bénéficiaires xale yoo xamante ni mi ngi ci biir ay xale yoo xamante ni projet bi jël na jël na leen en charge ci seen faj ci seen lépp daal comme ni mu ko waxee léegi nee na protection de l' enfant 0 5 ans yëpp 14 ans ba 15 ans 24 ans yëpp ñu ngi ci biir. mais aussi tamit amaat na yeneen programme yoo xam mi ngi ci biir lu demee ni ki groupe de jeu groupe de jeu boo ko déggee mooy xale yi nga xamante ni mënul dem école ñoom ñi ngi ñi ngi ñi ngi ngi nekk maternelle juddu juddu juddu ba am am un mois daal ba jëm deux ans xale yooyu demoonu école pour ñu éveiller xale yooyu indi leen ci groupe de jeu bi ñu nekk en 15 personnes ba 20 personnes bu ñëwee ñoom ak seen yaay lañ fiy nekkal dinañ togg nutrition jox leen dinañ éveiller seen yaay éveiller dinañ dinañ waxtaan ak seen yaay ay causeries yoo xamante ni mooy jariñ seen doom yi aussi xale yi tamit dinañ leen éveiller bu baax a baax si ay matériels yoo xamante ne ay fowukaay la yu yu séddi bi yu ñu jox séddi bi yépp ñu ciy yëngu nag ñun ñi nga xamante ne ñun lañ formé ci protection de l'enfant projet bi daal ci gàttal boobu macha allah wax dëgg yàlla yaay yi gis nañ ci seen bopp doom yi gis nañ ci seen boppa waaw yemul nag ci projet bi rek lépp loo xamante ni njariñ la muy dugg ci dëkk bi ci projet bi dafa dafa dafa laxasaale xale yi Cambérène bi yëpp mu dem ba ci école yeeg yëpp waaw projet bi daal teg na ay jéego yooyu moom ma doxal jox Aziz mu doxalaat ba ci kanam ba ñu gën a xamaat ñu ñuy teg suñu tànk gis ngeen ni mu ko expliqué bu baax a baax dañuy doxal rek daal di xuus ci waxtaan bi nga xamante ne mi ngi soxal tey projet Seydina Issa Laye bu Cambérène ba tey ma leen di fàttali rek askanu Lou'Bess TV yéen ci seen premier numéro bi nga xamante ne moom moo di découverte beneen question bi dama koy daal di jagle ki nga xamante ne moom moo di Abdou Aziz Fall ma bëggoon xam ana lan mooy seen relation ak partenaire bi nga tudd sànq mu di Pencum Ndakaaru waaw c'est c'est parce que boo xoolee sax Aram Euh, jot na laal si yenn service yi nga xamante dañ koy def ak suñu domaine d' intervention donc tey mën nañ jàpp ni euh, pencum Ndakaaru en fait euh, c' est l' association maire bi nga xamante ni tey tout ce qui est technique lu nga xamante ni day jóge si partenaire bu mag bi di Child Fund ñëw si association yi day jaar si li nga xamante ni moom mooy euh, pencum Ndakaaru donc waxoon naa la ko si biir wax nee naa la pencum Ndakaaru si association ñoom ñoo ko formé mm-hmm. donc chaque association également li nga xamante ni moom la ñuy def fii comme série d' activité moom la ñuy def également si mm, yeneen si yeneen association yi boo xoolee intervention yi nag bëri na parce que boo déggee léegi aram wax na ba tudd groupe de jeu wax na également yeneen donc euh, pour nga intégrer loolu tamit dafa am solo pour nañ ñi xam ko pour nga intégrer si projet bi donc d'habitude dafa am protocole boo xamante ni moom la euh, way jur bi di signer ak association bi de ce fait pour que ñu man di utiliser sa image mais également xale bi nga xamante ni dafay judd bu am 5 ans am possibilité wu ñëw ñu jël toutes les informations mais ginnaaw loolu ñu bëri dañuy yaakaar ni projet bi ku nekk mën na jug bokk si si ku nekk mën na jug bokk si mais ñun dañ am ñi nga xamante ni mooy ñoom lan taamu di liggéeyee mooy ñu naan le jargon DEV mooy les enfants démunis les enfants exclus et les enfants vulnérables mm-hmm. donc xale yooyu noonu moom mooy suñu cible principal parce que dañ bëgg rek ki nga xamante ni xale bi nekk dans de très bonnes conditions xale bi nga xamante ni sa famille en réalité amuñu moyen ñoom ñu mën a leen appuyer assister leen ban mën a demal seen bopp donc relation beeg euh, relation projet bi ak fédération euh, en fait euh, en fait comme mën nañ ko wax ni c'est une relation de partenariat parce que nee naa leen ñun mënuñu jug fii rek dem directement si suñu partenaire euh, local de Child Fund sans autant passer par fi nga xamante ni moom mooy Pencum Dakar donc Pencum Dakar moom mooy organisation bi nga xam ne moom mooy gérer tout ce qui technique même boo xoolee chaque association am na benn euh, mobilisateur communautaire mobilisateur communautaire yi ñoom ñoo ñuy facilité liggéey bi mais am na également lu naan le conseil d' administration. bi ma la doon wax sànq man maay secrétaire bi Aram Niang mii di wax ak man donc moom membre actif la si également. donc conseil d' administration bi ñoom ñooy xalaat si li nga xamante ni moom mooy doxal jébal fédération. fédération en tant que ay technicien ñoom ñu càmbar loolu pour ñu mën ñu revenir ñu mën a exécuter suñuy activité ah macha allah gis ngeen euh, développement bi nga xamante ne kii di Abdou Aziz Fall def na ko si rek ngir euh, projet bi dafa jóg ngir jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo di xale yi nga xamante ne seen ay waajur seeni loxo jotul seen ginnaaw ba ku ci nekk nga daal di sentir sa bopp ci biir société bi nga xamante ne fa nga yeewoo mu di une très belle initiative ndax wax dëgg yàlla ku sañoon na xale yëpp daal di bokk le même droit parce que ñoom ñëpp ay être humain lañu xanaa ma daal di wëlbatiku rek si Badiane Aram daal di koy laaj seen domaine d' intervention sànq yéen a ngi si doon dugg mais da ko brefé yow ak ah, ki nga xamante ne moom moo di Abdou Aziz Fall ma bëggoon rek ngeen gën ci xuus ana yéen mooy seen ay domaine d' intervention sànq maa ngi dégg ngay wax ay aire de jeu di wax xale yi nga xamante ne ay tout tànk lañ maanaam mu mel ni comme genre ah, orphelinat wala internat boo xamante ne dañuy jël xale yi daal di leen indi ñu leen di saytu ci biir kër gi xale yi nga xamante ne par exemple seen i ay wayjur dañuy xëy dem liggéeyi xale yi ndaw yi ngeen garder leen seen ay doom ba ñu wàcc comme ni nga koy expliquer sànq mën nga ci gën a xuus bu baax a baax comme ça ñi nga xamante ne dañuy seetaan te comprendre ñu ñu gën a comprendre ak adhération yi tamit nu muy doyee parce que sànq Aziz daf ko daf ci xuus xuus si bu baax a baax salaamaaleykum ma nuyuwaat euh, comme ni nga ko waxee euh, xale yi ah, xale yi zéro deux ans yeeg yooyu ñoom téyewuñ leen fi pour seeni parents yi di ñëw fay ñoom téyewuñ leen fi pour seen parents yi di ñëw fay dañu dugg ci quartier yi copte ay xale yoo xamante ni mën nañ leen jël. am na askan wi xam ko ngir ñu comprendre seen yaay amul fay fii amul fay amul dara amul waaw yépp da waaw waaw amul fay amul dara xale yooyu. waa léegi xale yooyu mooy xale yi nga xam jënd dañ nekk ci kër gi demaguñu école xam nga xale yooyu dañuy xëy rek wàcc leen ci kër gi mais xale bi bu ñëwee ci sédib si sédib bi si groupe de jeu bi day ñëw ak yaayam du ñëw moom rek dañuy ñëw mook yaayam yaayam day toog assisté bu ko defee ñuy waxtaan ak defal yaayam ay causerie yoo xamante ni dafay jariñ moom yaay ji di jariñ doom ji waaw si si ay nutrition lekkam ci ñàkku xale yeeg ñu respecté seen ñàkk yi ah di dégg pour ñu déclarer aussi xale yeeg yooyu yëpp pour xale bu judd même femme enceinte bi nga xamante ni dafa ëmb ñëw si causerie bi dañ koy wax mu xool mu toppatoo visite am ak yëppam parce que caay fon kii fédération Pencum ndakaaru formé na ne ay bàjjen yoo xamante ni pour lool moo tax mu jóg. dañuy am ñoo xam ne dañ leen leen di suivre ci biir dëkk bi ci quartier yi ñoo xamante ni dañ leen di suivre ci quartier yi pour seen seen seen seen seen visite ñu respecté ka parce que jigéen bu nekkee ci biir këram. di am nekk en état ëmb euh, te xamul wareefam il faut nga nga gunge ka fekk ci këram gunge ko ni que danga war a dem visit da nga war a def nangam ñaata visite nga war a def yii yëpp danga war a naan ay feer yooyu yëpp dañ leen di accompagner ba fi ñuy ne dem terme nga xamante ni ñoom signe de danger yeeg plan d'accouchement yeeg yëpp dañ ciy waxtaan ak yaay waaw foofu la ñu jëkkee balaa ñuy ñëw foofu. bu femme bi accouché aussi tamit ñu topp ko ba xam déclaré na xale bi ba xale bi. am na këyit yu baax ak yépp ñu gunge ko ci loolu bu loolu weesoo nag groupe de jeu bi muy ñëw mooy mooy ki nga xamante ne judd na ba am weer wala ñaari weer mu ñëw si groupe de jeu bi bu ñëwee dinañ ko peser mu toog yaayam toog bu yaayam toogee ñu koy waxtaanal li nga xamante ne moo baax ci xale bi loolu moo wund groupe de jeu di leen defal nutrition yoo xamante ne ay togg yoo xamante ne yu baax si xale yi la toog yoo xamante ne ñoom seeni parents yi kenn du ci fay dara waaw waaw dañu formé waaw formé nutrition yeeg yëpp yëpp la ñu formé moom macha allah léegi nag foofu nag bu nu bu nu bu nu du nu dajalee seen yaay yi waxtaan ak ñoom li nga xamante ne mooy njariñ ci xale yi su ko defee ñoom bu ñu demee dinañ ko yóbbu ci kër yi mën ko jëfee ba pare dañ koy topp saa yu bu ñëwaatee ci ci ci groupe de jeu bi dinañ leen laaj bii passé lan lan waxoon ak yéen ndax parent bi mu ngi ciy bàyyi xel wala déet à chaque fois loolu la ñuy def. Euh, groupe de jeu daal loolu la wunda daal loolu la nga xamante ne loolu la wunda daal mais na kenn fayu fi dara lépp fédération pencum Dakar daf ko gàddu parce que dafa leen préparé préparé ay relais yoo xamante ne dafa leen defal protection de l' enfant euh, def ñoom formation jënd ay jouets aussi tamit si seen i xaalis tegal xale yi amul benn moyen boo xamante ne parent bi dina ko def si biir groupe de jeu bi lu dul lu dul ñu ñëw rek ñu accompagner leen. voilà. macha allah euh, gis ngeen bàjjan nu mu ko développé bu baax a baax gis ngeen lépp li nga xamante ne dañ koy def ci biir projet Seydina Issa bu Cambérène pencum Ndakaaru Ndakaaru mooy seen partenaire bi nga xamante ne moom mooy lijjan ci wala moom mooy ta tatagal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw saytu li nga xamante ne moom moo di wàllu nutrition xale yi wante gis ngeen tamit volet bi nga xamante ne daf ko wax mu di accompagnement euh, parents yi nga xamante ne amaana ñu daal di suivre seen doom ba ñu am ay kayit wala tamit ki wanu lor ñu ko ba nga xamante ne dafay mujj si jàmm damay wëlbatiku ci Aziz rek daal di lay laaj euh, pour nga adhérer si projet Seydina Issa Laye nan lay demee. waaw balaa maa ñëw si question boobu noonu dafa am benn question boo laaj aram bu am solo. boo mhm. xamante mën naa si saani astuut mhm. balaa may ñëw si ni nit di def ba adhéré mhm. parce que da nga laaj suñuy domaine d' intervention parce que soo xoolee c' est pas gratuit ñu am trois tranches d' donc boo xoolee ñi mu ni mu wax ñi am zéro ba cinq ans am na ay série d' activités yu ñuy defar ñoom en dehors de groupe de jeu yi nga xamante ni mhm. parce que soo xoolee euh, si projet bi am na benn centre de développement intégré de la petite enfance moom lañ naan CEDIP souvent CEDIP euh, gars yi dañ daan comme genre garderie la mais boo xoolee CEDIP yi ñoo gën a en fait euh, formel mais également ñoo gën a professionnel mm-hmm. parce que am na ay série d' yu mel ni éveil mm-hmm. euh, stimuler xale yi à ce que ñu am benn background de ce fait bu ñu jógee ci garderie bi ci CEDIP bi dem ci école élémentaire bi mën a am le maximum d'outils donc ñi nga xamante ne ñoom ñoo am 6 également ba 14 ans am na ay série d' activités yoo xam ne dañ koy def ñoom boo xoolee au niveau de la fédération Pencum Ndakaaru de même que les associations ñu ngi organiser ay cours de soutien. Mm-hmm. dañuy jël xale yi nga xamante ni amuñu niveau dans les écoles ñu ut ay maîtres ay professeurs yu leen di jàngal. Euh, pour renforcer également seen i capacités euh, boo xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñoo am euh, quinze ba 24 ans également y a des séries boo xoolee xale yu bëri yi nga xamante dañ dem ba jàngatun en mm-hmm. réalité fédération bi ak le projet dañ leen di jël en charge dugal leen ci école de formation yi bu ñu jàngee ba pare ñu ñëw forme leen dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, utal leen également ay financement pour que ñu mën a autonome mën a dem euh, demal seen bopp. donc si volet également lu si mel ni santé dem ciy yëngu. parce que on a un programme santé. Euh, on a un programme parrainage parce que parrainage sax souvent ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk si conseil d'administration bi. Euh, dañ siy jaayante pour que au moins plus que ñu suñu parrainage di dox plus que suñu partenariat di gën a dëgër. Mm-hmm. donc am nañ côté éducation également boo xoolee dans les écoles. de mm-hmm. Cambérène. Mm-hmm. chaque anne dañ leen di doter. ay matériels yi nga xamante matériel de reprographie boo xamante dina leen permettre xale yi lu au lieu ñuy dem di photocopie dootul photocopie. mais également voilà dañ koy def gratuite donc en dehors de ça également yàlla a le programme des AVEC. donc mooy association villageoise d'épargne et de crédit donc boo xamante ni dañ ko jagleel femmes yi. boobu moom dinaa euh, soo ma ko permettre dañ koy denc ba ci kanam rek après ñu fas yéene ci xuus xanaa euh, waa ma bàyyi la nga àggale rek. voilà juste pour revenir ci question bi pour projet bi nga bokk ci ñun dañuy préférer xale bi nga xamante ni moom moo juddu ba am 5 ans 0,5 ans. ñoo ñëw ëpp pour ñëwee dina fekk ki nga xamante ni moom mooy mobilisateur communautaire bi. Mhm. moom moom moo leen di enregistrer. donc am na ay série de question yu nuy posé xale bi ba xam ba xam xale boobu si jargon yi ma lim sànq si la bokk soit ba xam xale bu démuni la. Hmm. ba xam xale bu vulnérable wala ba xam xale bu bu exclure la. donc ñu mën la instruire nga mën a intégrer. Hmm. mën a am ay services. donc services yooyu nag bu njëkkoon c'était des services directs dañuy miser rek si xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk suñu suñu champ d'intervention. Hmm. mais léegi xale yëpp la yemale bokk projet ki bokkul projet. effectivement gis ngeen euh, lu am solo li nga xamante ne ki di Abdou Aziz Fall développé na ko rek ñu bàyyi xel bu baax a baax ci projet boobu di Seydina Issa Laye nga xamante ne xale yëpp la fi nekk gis ngeen fu mu jeexalee ay kàddoom parce que xale bi nga xamante ne dafay bokk ci projet bi ak ki bokk ci projet bi yëpp daal di mën a yem gëdd parce que xale bu ci nekk tamit am nga droit dem école xale bu ci nekk am nga droit ñu suivre la ci li nga xamant ne moom moo di le plan wante itam nga dund dund bànneex ci bokk ko ak sa moroom yépp xanaa ma daal di ñëw ci prochaine question bi nga xamante ne moom moo di ma euh, commencé ci bàjjan aram rek man moom bàjjan laa lay wax ndax bàjjanu gox moom bàjjanu ñëpp la rek ñu daal di ñëwaat ci li nga xamante ne moom moo di avec bi nga xamante ne Abdou Aziz Fall ngi ko doon tudd sànq dama bëggoon ñu gën ci développé parce que euh, dañuy daan dégg ci àll yi rek que avec avec avec nit yi comprendre duñu ko woon léegi nekk ah, ma gis ne que mi ngi faral di am Cambérène bu baax a baax bëggoon naa nga ñëw définir ñu lan mooy avec ak lan mooy taxawaayam si jigéen ñi. waaw avec soo ko déggee mooy association villageois association villageois mooy mooy association bu ay kuréel la yoo xamante ni ñii ci biir dëkk bi ci biir euh, askan bi la nekk ay kuréel yu ñu def def ko ñu am président. trésorier secrétaire yépp daal def seen bureau daal bureau la ñuy jël teg pour pour mën a doxal affaire bi euh, avec boo ko déggee mooy dañuy dajale lu mat ñaar fukki nit wala ba ba trente ba ba trente personnes ñaar fukki nit ba fanweeri nit yépp mën nañ leen dajale ci benn euh, kër ñoom ci kër lañ koy defee léegi bu fekkee ni am nañu ñaar fukki nit yooyu wala fanweeri nit yooyu ñu ñëw former leen. si nan la ñuy defee nan la ñuy yoree avec nan la ñuy doxalee avec avec na pour ñu doxal ko moom day fekk ñi nga xamante ni ñoo ko lëkkaloo ñoom ñëpp ñu déggoo ci ñu déggoo ci ay kàddu mm-hmm. du ñëw rek taawal seen bureau bureau bi dañ koy da ngeen koy déggoo yéen ñëpp léegi aussi foofu tamit avec bi am na ay carnet yoo xamante ni moom lañ leen jox mooy matériel bi kit benn kit boo xamante ni kit bi am na ay cahier yoo xamante ni kenn ku nekk ak carnet la am na ay pot yoo xamante ne ci la ñuy def xaalis bi am na aussi tamit ay saak ay ay saak yoo xamante ne ci la ñuy dugal épargne ak solidarité la léegi nag épargne bi moom mooy looy loo yaa yaak fa moom solidarité bi aussi tamit mooy loo xamante ni jafe-jafe la su suñu biir foofu lañ koy jël léegi nag épargne bi moom dañuy yéen ñooy xool rek kenn ku nekk ndax ñii 500 la lañu am wala 1000 francs ngeen copte benn somme ñu ni lii la ñuy def samedi bu jot wala lundi bu jot wala yaa saa dépense weekend bi léegi bu ngeen defee loolu ba pare ngeen teg seen bureau bureau bi nag comme ni ma la waxee sànq bu ne amee présidente am na secrétaire am na trésorier am na ay compteur ñi nga xamante ni ñooy compter xaalis bi ak waa ñiy wàññi xaalis bi am na aussi tamit ñi nga xamante ne ñooy denc clé kit bi ndax kit bi dafa sécurité ñi nga xamante ni présidente bi denc kees bi présidente bi moom day ñëw rek defar wax ni jaar leen nii jaar leen nii trésorier bi mooy denc kees bi bu ko dencee clé yi yoru ko ndax dafa sécuriser dafa dafa dafa dafa wóor wóor gi mu wóor nag moo tax épargne yéen tey def yëpp loo fa def fa nga koy fekkaat. waaw léegi ñett kees yi ñetti caabi lay am caabi yooyu boo gisee mu nekk ñetti caabi pour gën a am pour gën a wóoral seen kees moo tax. ñi nga xamante ne ñooy denc caabi ji ak borom kees bi bu ñu yem kii denc kees bi dakay denc ñi nga xamante ne ñooy denc caabi yi kii day dëkk koñ bi kii dëkk koñ bee kii dëkk koñ bee su ko defee pour ñu ubbi ubbi kees bi il faut ñoom ñëpp ñu toog ñoom ñëpp ñu toog ñu mën a doog ubbi kees bi aussi bu ñu toogee tamit di laaj seeni paar ñu tuddee ko paar euh, kenn ku su nekk am nga sa carnet boo jëlee carnet bi teg jox kenn ko ne ci carnet bi nga commencé da leen di numéroter aussi tamit nga def numéro 1 numéro 2 numéro 3 ba vingt cinq ou bien numéro trent boo ko numéroté ba pare kenn ku su nekk sa numéro ngay jàpp amul sama kaye tur bii nii mais numéro yi lañuy jàpp. am na alamaan aussi mun la pour pour ñu gën a bàyyi seen xel ci li ñuy liggéey alamaan yooyu bu fekkee ni respecté woo clé yi nga indi ko caabi yi ñu soxla ko indiwoo ko ñu alamaan la yow mi nga xam trésorier boo tëjee kees gi dem boo ñëwee. fekkoon na nga nekk ci kër ga dina la alamaan moom daal dañ ci teg critères yoo xamante ne kenn ku nekk di nga ko fullaal te paar yooyu aussi tamit carnet bi nu lay jox kenn ku nekk ak sa carnet am na benn tampon bu ñu ci def boo xamante ni boo jëlee jëndee paar benn paar ñu defal la benn daal di trait dafay am 5 cases yoo xamante ni moo ci ne case bii bu dee benn la nga def 500 muy ne 2500 ou bien nga def 1000 francs mu nekk 5000 mais bu fekkee da nga jënd benn paar dañ lay tamponner benn. baare carte pa carte yi pour sécuriser karne bi waaw bu fekkee da nga jënd cinq parts ñu defal la euh, cinq parts muy cinq mille ou bien deux mille cinq cent daal def trait ci suuf bu ko defee ñu sécuriser tamit page boobu a chaque fois bu ñëwee di réunion kenn ku nekk dina lay joxaat sa carte sa carnet mm-hmm. nga vérifier xool ndax yow la nga ca def ma nga ca wala déet waaw ndax la nga def ci cahier bi ma nga fa wala déet ba xam bii passé joxe woon nga te te tamponné woon ko wala déet moo waral ñu leen jox kaye yi ñoom ñëpp ñuy vérifier euh, bu ñuy toog nag dañuy toog en rond la ñuy toog nii parce mhm. que ñun ñëpp kenn ku nekk jàkkaarloo amul kiy toog fii amul kiy toog fële dañuy nekk rond la ñuy toog ñëpp toog jël kees bi teg teg ci digg bi mhm. bu ñu tamponné benn paar wan la ka ba nga gis ko bu la wanee nii nga xam ne am nga benn paar ñaari paar ñu lem kaye bi teg defaat sa morom defaat sa morom ba mu jeex soo gisee épargne boobu nag di toog 12 mois pour mën ko partage Ah waaw loo fa def nag fa nga koy fekk. Euh, solidarité aussi tamit képp koo xamante ni yaa ngi nekk si euh, avec bi. Mhm. boo ñëw da nga indiwaale 100 francs 100 francs yooyu boo ko indee pour ku sa doom feebar. mooy solidarité mooy solidarité bi ku sa doom feebar. ou bien xale bi day jàng école amul fay. Mhm. ñu jël foofu ci solidarité ba fayal la ngay def mariage aussi ñu yëkkati ca som xam nga mariage nit ñi dañ ko fonk. Mhm. ñu yëkk ci som ñëw jox la yooyu yëpp si solidarité bi la solidarité bi la fii yaa ngi koy def ca 100 francs mm-hmm. amul kenn ku koy delloo mm-hmm. doo ko jëlaat moom daal képp koo xam te am ko problème loolu moo tax mu jóg te moom moom moo ëmb lépp moom soci foofu la social commencé mm-hmm. ci solidarité boobu bu ñuy bu ñuy toj bu ñuy toj kees aussi tamit amul buñu kenn du séddaat euh, kii bi solidarité bi fan koy bàyyi part bi aussi tamit bu koy toj xool kenn ku nekk li nga ci am ñu jël ko 1000 francs bu ne. da ngay am bénéfice. léeg ñu toog tamit ba yàgg ñu def seen euh, benn genre crédit. Mhm. bu ñu toogee ñetti weer xool suñu kees bu fi nekk bu ñu amee 100000 200000 wala 500000. ñu xool bu ñetti nit ma am jox leen 100000 ñu dem liggéey ñu ñëwaat ñu ñëwaat. bu ñu mhm. ñu versé ñu joxaat ñeneen ñu versé. léegi nag bu nga xamee ni un an jot na nag versement yooyu ak sa part yemul. versement bi dañ koy teg ne part yi ñu teg ko ne muy bénéfice bi ak part bi. paar yi nag kenn ku ne la fa dugal yaaga moom bénéfice bi nag tamit day tolloo kenn ku nekk mil francs bu ne day am ci bénéfice bi ki liggéey ak ku liggéey ki ki dugal ak ki dugalul yépp du ñu yem ki ëppale xaalis rek mooy ëppale ci bénéfice boobu parce que xaalisam moom ne ci biir moo ëppale moo am nag sutura lool ba tax nag nit ñi dematuñu banque kenn xojatu leen seen kër yi macha allah moom moom moom moom avec wax dëgg yàlla nit ñaa ngi ciy liggéey jaaykatu jën yaa ngi ciy liggéey da gis ko ñëw soxla 200000 ñu yëkk ci kees gi jox la nga dem liggéey ñii soxla 100000 ñii soxla fukki junni am na ñoo xam te ne sax dañuy jaay gerte 10000 la ñu soxla ñu yëkk jox leen te kenn du la fayeeku membre yi dañ koy respecté macha allah affaire daal ba mu ñëwee ba tey macha allah moom zéro faute. waa foofu tamit buggoon naa leeral di jaajëfal pencum ndakaaru waaw projet Seydina Issa Laye bi ñoom ci Cambérène ak ak pencum Dakar. ndax ñoom ndax ñoom euh, xalaat boobu ñoom ñoo ko jëkk xalaat ci Sénégal ñoo ko def fii ci Sénégal def ko Cambérène keroog bi ñuy def euh, premier avec Cambérène man la ñu jox première caisse bi man lañ ko jox première caisse bi lañ ko jox formé nu pour ñu guider nit ñi macha allah léegi nag ñu leen di gërëm bu baax a baax ndax jigéen ñëpp ñu ngi liggéey ñii ñu ngi si cuuraay yi ñii ñu ngi fii ñu ngi fii procès naa Issa moom moom jëf caay foon tamit jërëjëf wax dëgg yàlla macha allah macha allah pencum Dakar parce que boo xoolee jigéen ñi ay jàmbaar lañ au Sénégal da ngay gis souvent jigéen ñi dañuy daw dem fu nekk ci banque yi di leb boo xoolee Cambérène léegi loolu sax pratiquement amatu fi mën na ni quartier boo dem am na avec te tey nit ñi plus que ñuy gis avec yi plus que ñuy demander ay kit wax na wax na lu am importance muy kit yooyu noonu parce soo xoolee tey da ngay gis ci dëkk bi ñoo xamante ne dañ naan euh, bi ma bokkee avec laa jënd frigo pour commencer di jaay ñi nan la sama boutique bii nii maa ngi ko amee si avec yi donc yooyu c'est des cas de réussite mm-hmm. et que ça nécessite même noonu ñu xool nan lan def ba am loolu ñu ñeneen ñi man ko partage mm-hmm. donc li mu wax si avec daal vraiment amuñu leneen loo xamante ni dañ ko si dolli. waaw c'est important parce que boo xoolee avec déjà c'est une assemblée. Mm-hmm. c'est une assemblée générale boo xamante ni ñoom ñooy toog waxtaan. mais nag dafa am ay textes yoo xamante ni moo lié avec bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ses adhérents. donc ba déggoo si li nga xamante ni. moom mooy avec bi li muy li muy laaj ci ay taux d'intérêt yépp ñoom ñu déggoo ko parce que wax na amee tamit benn aspect mooy solidarité am ñoo xamante ni solidarité boobu noonu ci leen ñuy fajee ay sutura parce que bu njëkkoon boo gis bu nit euh, ñu ñaan yàlla mu yéex bu nit làqoo àdduna ñu ñu ñuy daw di cotiser pour kii mais bu dee yow membre nga woon ci avec bi avec boobu noonu kees de solidarité boobu da lay da lay dimbali mm-hmm. wax na ko am ñoo xam dañu nekk dans l'urgence ñëw kii mais nag ak avec bi dañ naan la lii nii par exemple boo jëlee temps pourcentage bi lii la mm. donc yooyu yëpp texte yi nga xamante ni moom moo nekk ci biir avec dañ ko fa définir à 100 pour cent incha allah dañuy kontaan bu baax a leen dalal ndax saa su nekk mbégte lay doon wante itam njariñ lay doon ci askan bi nga xamante ne ñoom ñoo di askan bi ñuy seetaan ndax nee naa rek Lou'Bess TV Cambérène la nekk wante itam dafay dem travers le monde entier parce que nag ñu ngi si plateforme yi nga xamante ne moom moo di YouTube boo demee Facebook da ñu fay fekk wante itam boo demee Instagram ak foo mën ci dem bépp plateforme rek dañ fay daal di fekk li nga xamante ne moom moo di lu Lou'Bess TV may jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom laa invité woon ci sama plateau bi rek xanaa di leen jox Euh, dig daje beneen yoon ci suñu beneen numéro découverte balaa boobu nag mbokk yi ngeen may ma rek euh, ma daal di remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp tey si liggéey bi ku ci mel ni Assane wante itam du ma fàtte benn yoon Alioune waaye itam di remercier waa Glam House mu di Magui Chanel nga xamante ne tey moom moo jaar si bopp bi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox rek dig beneen yoon ci beneen découverte merci beaucoup